dañoo ñëw fii ci Serigne Gallo Mbaye euh, di waxtaan seeg moom euh, ci mbirum màggalu Darou Khoudoss ak Cheikh Moustapha bëgg mag la moo xam ne am na téeméeri at lu mu ci xam dana mën a doon lu mu mën a jàjji gone yi ëllëg loolu tax mu ñëw bëgg a waxtaan ak moom léegi nag dangeen seet question yi leen gën a ñor rek ñu posé ko ko ko defee bu mu expliqué lu ngeen ci mënta xamit ma leeral leen ko mm-hmm. ndax maa leen di gën a dégg aw waxinam ak yu mel noonu daal loolu. asalaamaaleykum. Mhm. maa ngi leen di déglu leen wax loo xam ne man na woo ko xam. waaw ah, bari na man nag man la ñu wax Diallo Mbaye la ñu woowee saa tur nag di bon Mouhamadul Kabir mooy sa tur dëgg dëgg dara nañ ma xamee moom la ñu may wooyee daa bay ñu di wax Mouhamadul Kabir moom ki nga xam ne moom ki jëkk ànd ak sëñ Tuubaa seen si dëkk bii Mbàkke Kajoor la ànd ak sëñ Tuubaa jëkk mu ñëw fii ginnaaw Mbàkke Kajoor Daaru Salaam ci tegu ñoo ànd ñëw Daaru Salaam te na am ne Mbàkke Kajoor yi hmm. ñëw Daaru Salaam Daaru Salaam resa mu sawa gane adduna ak sëñ Fari leer lu mu woote musuta am màggal gi nag li ko waral Cheikh Moussa mooy taw sëñ Tuubaa ci ne li la nekkoon dafa liggéey ngiram tindoodi ak ndindi sëñ Tuubaa moo waxoon kii nekkoon na ngeen daan dëkk ba diggante boo xam ne safa julli si ci jumaat bi Cheikh Moussa sant si tudd tudd usul maat ci ndindi bi ci penn loolu mooy cosaan Tuuba mooy cosaan loolu ndindi ak tindóol ak tindóol Cheikh Moussa ba mu toll ci ñeent fukki at ak benn bàyyi koo ba mu ñëwee ba mu daataan dellu

ñu ko wax ma paata mbay mooy natteeru doomu sama baay waaye natteer boobee moo jot a ci kaw seen tubaab moo ne sama baay na denc ndax bàyyi ne ko kat ñaar ñoo ko mag mu waaye lu may desal soo xam boo ci réew lu mu ma nga ci fett kookee nag Cheikh Moussa ba muy jëral ci loolu na ko fekk ma ci réew mi moom may la dugub. parce topp dafa daal di topp ba mu ñëwee ci loolu ba fay ko asamaan sebee ba sa soo ne ko asamaan sebbi na. Hmm. neexatu la wootoo. woo di leen bëgg yoo. ba ñuy tàggoo. nee na ko boo demee nuyul ma sëriñ bi dagam da ko gis ci koo xam ne ci da koo jege woon ah, ma ne ko baax xam nga nee na ko ko dagam da ko gis fekk ba ma tàggoo ko Tuubaa dégg ngeen ko. dégg ba mu baatee demee ca Sibisa. sax mu sa waa xëy ne leen mu daaboo. mel ne dafa gëlëm. Mm-hmm. ñaateel la dem. ba mu demee fanaan na ñaateel xëy jaar gaawaan fa seen gaawaan yàlla fa. seen gaan ba ko fayloo ma ne ko doo mën a fayal yendu lay man waaye fayal boobu mënu ma ko ba mu bàyyi koo gaawaayam dikk njaareem fekk ba mu ñëwee laajtaay yi dañ ko laaj bëri ci ngeen ko ñu fekk fekk te sangam la demoon seen tubaab yow joxe ko ko nit guddi googee léegi ci gàttal seen tubaab fayal sa ne tubaab yi seen bés yoo ko suba bu mag ba ñu wax lali korno. lali korno. lali korno. lali korno. waxtu bu rëy boo xam ni ba mu wattu bëri. Mhm. jàpp sa jaar bi jaar ñoo bokk ndey bay na nga dal di yëgal yónnee ca seen seen jaar xamaa ne ko fa faral di wax Abdoulaye na réew na.

sa wër kër gi. toj yëpp. loolu daal laa fekk gis ko. keroog lañ. fekk na boobu sëñ moom dem yóbbu nañ ko Touba. fekk fekk nañu yóbbu sëñ bi Touba ba noppi. guddi la ah ma yeewu. lépp si guddi gi rek ma neew sëñ Touba ba mu faransé ba mu ko laajee ñu ne ko si test sangam la bu jëlee mu ngi daal di xam ne lii mm-hmm. mu indi ko ci guddi gi laaw damaa bëgg wax di kat. waaw. sëñ Bachir moo ko indi sëñ Moussa dikkul. waaw. guddi ga sax dama ko gàttal ngir bi mënatu ta wax lépp. Mm-hmm. waaye li màggal guddi gi li ko li waxal li war a màgg ngeen wax rek. Mm-hmm. da koo wax rek ba muy tàggoo moom wax naa la da ko leer. bu weer wi amee fukki fan ak juróom. boo amee fukki fan yow fu ma la mën a fekk di ceeb bi. da nga fekk fii luy niru ci lu nit. nan ko yóbbu ko Tuuba. da nga fekk fii luy niru nit te du nit. te mhm. du nit nan ko yóbbu ko Tuuba. loolu lay niru ceeb bi ba ko guddi ji ba mu sëñ bi idée te déwén sa la màggal màggal ay sëñ Tuuba yi. Mhm. te leelu ko gàtt ngir tari su ko de billaahi bañ ne sëñ Tuubaa ne ko waa ku génneew nag ku génne gerte dee ma ne bis bi li xewee damaa xewee sa alors waa àll bi yëpp ñëw ko waa ñëw naa ci bëccëg ba ko waa ci guddi ñëw na fekk benn balaa ku ne fii tey ñëpp war ko rek muy maanaam muy fi ñu def sëñ bi booba sëñ bi la fekk am na fi kër bu rëy ci penku ñu wax Seydou Fall mooy booba kër gi di ko wattu kër googee mooy fii mu ne mooy bibliothèque sëñ Abdoulaye bi ak kese yi foofu la dem. sëñ Abdou Khadir kër sëñ Abdou Khadir rek bibliothèque. waaw mooy ku teete juróom benn la. waaw boobu moo doon kër si si si si Abdou Khadir. xanaa ko sax màggal yi kon xam ngeen ko. waaw màggal bu njëkk bi yoon bu njëkk bi moom mooy déwénu demuk sëñ bi daal mooy ba bis ba déwén si rek ca déwén si. ndax nee na dem gi moom rey ñu ko gàtt rey ar defuñu dara sëñ bi daa dem ñëw denc ko amul dara te déwén sa nag lañ ko njëkk a wor foofu ma dara ñëw ci at moom rek. at mu njëkk moom defee su ci dara moom. su ma xam naa daal booba lekk sax bari fii. Hmm. booba doon ñu ne xale lool. sëñ bi am na fi ku ñu wax Thierno Fall vingt vingt huit la. waaw ba bi mu demee. mille neuf cent quarante cinq. waaw da koy magal. Hmm, vingt huit ba quarante cinq ça fait dix sept ans. waaw fukki ak fukki ak juróom-ñaar monsieur Moustapha demee nag. seen ziar fukki ak juróom-ñaar. de xalifaam. ba booy mooy bu leen dépendant de. waaw. quarante cinq. wala suñu seet ndar. Hmm. booy laa ne ko. booy laa moom moo bokk moo yële laawaay boobu de. gouverneur laawaay. màggal toppal ko. ba pare ñu naan Assane la àndal de conseil territorial la booba. territorial. waaw booba mooy. Hmm. mooy mooy capital alors jëpp. ba mu ko waxee sa sa ko bis boo bee Cheikh Moussa daal màggal léegi bu ñëwee hmm. yow mi boo ñëwee da fekk mooy màggal da ko fekk baax ba bu jógee hmm. dara nga lonkal si ba mu nee ba génn pare ba asan la wax wéne na ko kii dina màggal dama ko fekk kat kat lii mooy màggal waaw ñor bu mu ko ñoroon ak ni mu ko daan soññee taalibe yi hmm? nu mu ko ñor gi mu ko ñoroon ak nu mu ko daan soññee xam nga loolu lañ lañ ñëwoon ñoom intéressé na leen loolu magal gi hmm. dañ see am ak wuute ci am nga teel yi na ñu ne bu demee duñ def déwén ak mën a nagam hmm. waaye dañ see am wuute Cheikh Moussa bind na ci وينتي إننا لن ندي مفكر لها توكي magal tukki ba. magal tukki ba. waaw muy safar. waaw magal gii nga xam moom moom la ñu magal. ginnaaw tamxarit. waaw. magal boobu seen tubaab moo ko santaane ne mooy sama tabaski. waaye bu leen ko tuddee nag ak tabaski woote koy bu leen ko tuddee ak tabaski màggal gi moo ko wax moo ko tuddee na ngeen yaatal ñaam jaay yooyu waaye woote wu ko sama soxla ne nag liggéey moom danaa bu may dem départ bi màggaloo ko mu dem seet ak fanweeri ak yaar ci njafee bis ba mu dellu see boobu bis daal mu ngi si koo dee daal. la dem dem ba lañu hmm. dikk ba nga kat jay sës yi fi bàyyi ko sa jeewal. waaw ba wëm sës. te fanweeri ak yaar xam ne lépp lañ koo jàpp. waaw génne ko li ñu sërëwee. bon léegi boobu la wala yi ne xam nga ñàkk te ku gis bu wute gis bi moom fanweeri yaay lépp la fa moom lay gis. Mm-hmm. ak fee bi. ma ne kon nag ginnaaw dem gi la màggal dëkk bi na soo màggal. Eh? xëy na Malick moom leer na nit daal bu waaye waaye xanaa. ku ne këram bañ a gond yooyu wala ku gond yu bëri fi yàlla fàtte waaye kooku fekk yooyu te yàlla fi am ma laajte yàlla nee daal sax mu saa ne loolu daal ginnaaw dem bi rek la bëgg daal ndam bi la waaw njëriñam itam ak njafe rek ëpp mm-hmm. dëgg amee huit indi nañ ci réew mi mu yaru gaawaan ba mu bàyyi ko Dakar gaawaan la nag da nga dégg naa wala doo yaa dee sala ngir ba mu ñëwee ba ba mu demee ba agsi Dakar sëñ bi ndee ma ko wax dana Cheikh Ibra sëñ gaawaan mënu ma tàmbali mu jul ñoo ko fa fekk loolu sëñ bi ma ko ak ba ñu liggataat dayoo ne damaa bëgg ngeen ñëw yéen ñetti ñii nu bokk ko fan yii yéen a ko def nan ko